bokk yi dal leen ak jàmm ci biir limametti point com ñu ñëw ak yéen ci seen revue de l'actualité nek li nga xamni mo moo fess ci xibaar yi fi jot a xew li ci gën fess di ay violence yo xamni sétlu nañ ko jamono ji ci walum sport li ci ñëk nak mom moy lamb ji fa li nga xamni nak mom moy arène nationale dimanche bi ñu gën ci diggante combat bi waron dox ci diggante Papa saw ak Siteu mujjul am nak gañu gañu go xamni Papa saw am nako lolu dinañ ko yaatal ci biir seen revue de l'actualité fële ci stade ngalandu Diouf tam ñu sétlu fa ay violence ba ben nit daal di ci ñàkk bakkanam am ñu bari ñoo xam ni am nañ ci ay gaañu gaañu ci benn match nawetaan loolu itam dinañ ko yaatal ci biir seen revue de l'actualité suñ ci toftalee yeneen xibaar yi nga xam ne xew na fi mu doon seen revue de presse ngeen koy am ci biir seen site d'information limametti point com ñu daal di koy dooree ak politique ñu ñuy xamal ne nag ki nga xam ni moom mooy Bougane Gueye Dany di eh, eh, jiital gëm sa bopp jamono ji ko jàpp fa nga xam ni moom mooy ca diwaanu Sédhiou waral meeting bo xam ni bëggoon na ko amal eh, moom ak ay militant meeting bi lépp ñu ñuy xamal ni kenn autorisé wu ko woon jamono ji nag ñuy wax ak yéen ki nga xam ni moom mooy Bougane Gueye Dany mi ngi ci loxoy takk deri nga violence bu metti ñu seetlu ko jamono ji ci wàllum sport li nga xam ne nag moom mooy ay gaañante ñu gis ko ci li nga xam ni moom mooy sport bi jamono ji Sénégal fële nga xam ne nag moom mooy arène nationale dimanche bi ñu génn ñu waroon fa amal combat bi nga xam ni moo waroon opposé Papa Sow ki nga xam ni moom mooy Siteu combat bi mujjul am ndax xeex goo xam ne am na fa ba ki nga xam ne moom mooy Papa Sow jëlee ci gaañu gaañu bu metti ci bopp bi ba ñu mujjee arrêté li nga xam ni moom mooy euh, combat bile loolu nag nekk lu doy waar loo xam ne ñu bari euh, ñi ngi koy nakkarlu ginnaaw si loolu nag euh, li nga xam ni nag moom mooy yoon mi ngi def liggéeyam ndax mi ngi topp mbir mi leen li nga xam ne nag a dal uh, waa kër uh, Siteu uh, ci altercation bi nga xam ne am ci ak Papa Sow moom mooy ki di batteuram bi maanaam tëggkatam bi nga xam mom moom lañ wax ni moom moo jël li muy tëggee Papa Sow ba mu daal di ci am gaañu gaañu mom am mën nañ ko interdire li nga xam ne moom mooy définitivement làmb ji maanaam mu bañ a ñëwati nga xam ni moom mooy ji Siteu nag avertissement dina dal ci kawam bo moytuwul loolu nag li comme dina leen ko toppal ngir xool Papa Sow ak Siteu nan la ñuy mujjee ak histoire bi li nga xam ne moom moo leen boole. ba tey ci violence yi nga xam ne am na ci wàllum sport fële nga xam ne moom mooy stade Galandou Diouf bu Rufisque benn match bu doon opposé waa Thiawlène ak waa Gif mujje nag noo xam ne neexul dara foofu nag benn mur moom moo daal di daanu ci ñi nga xam ne ñoom ñooy supporters yi bousculade boobu nag moom moo ko dal di waral la benn nit dal di ci ñàkk bakkanam benn xale bu góor nag bu tolloog ñaar fukki at ñàkk na ci bakkanam 38 personnes daal di ci am ay gaañu gaañu am ci ñoo xam ne nag seen i gaañu gaañu sax mujj naa am metti ba ñu rawale leen fa li nga xam ni moom mooy hôpital loolu nag di bilan bi nga xam ni euh, def nañ ko fa li nga xam ni moom mooy stade euh, Galandou Diouf euh, ci match nawetaan boo xam ni amoon na fa mujje nag noo xam ni neexul dara li nag di loo xam ni du benn yoon ñu koy gis fi nga xam ni moom mooy ci match nawetaan yi violence bu bëri seetlu nañ ko ci ñi nga xam ni nag ñoom ñoo ëmb wàllum nawetaan yi jamono ji daal di décider yi dañuy daal di arrêté li nga xam ni moom mooy match nawetaan yi pour le moment nga xam ne moom mooy problème violence yi daal di réglé wu. actualité people ci la ñuy ñëw ak yéen kii di Wally Seck ak Sidi Diop jamono ji coow di judd woon ci seen biir li waral nag moom mooy date bi nga xam ni moom le 11 décembre ñoom ñaar ñëpp doon ko xëccoo ngir tëgg fële nga xam ni moom mooy Kaolack fële ca Kaolack nag kii di préfet bi daal di mujjee tranché daal di bàyyi di Wally Seck mu daal di wëyal li nga xam ni moom concert kese moom moo nar a tëgg fële nga xam ni moom mooy le 11 décembre kii di Sidi Diop nag préfet daf ko daal di tere li nga xam ni euh, moom mooy concert bi la li ko waral nag euh, moom mooy préfet dafay xool sécurité ñi nga xam ne ñoom ñoo fa nar a teew di éviter li nga xam ne moom mooy trouble à l'ordre public euh, kii di Sidi Diop bi te daal Mom yéex a déposé li nga xamné euh, mom euh, concert manam demande bi nga xamné euh, amal concert bi lolu waral nak ba ki nga amal li di événement nga xamné mom le 11 décembre 2021 ba léegi ñu woy yéen ci people kii di Mame Gor Diazaka ak soxnaam Sile di faatu Thiam ñoom ñaar nag jamono ji ñu ngi dégg ay informations selon lesquelles ni dañoo nekk ci en instance de divorce ki nga xam ne nag moom mooy Fatou Thiam la ñu wax ni moom moo daal di demander divorce kii di woykat bile mbiri sax mujjee fa nga xam ni moom mooy tribunal ci ginnaaw information yi ñu am kii di Fatou Thiam demoon na fa li nga xam ni moom mooy tribunal ngir amal divorce bile waaye kii di Mame Goor Diazaka moom moo ñëwul ba tey ci information yi nga xam ne am nañ ko kii di Mame Goor Diazaka jàpp nañ ni li nga xam ni moom mooy calendrier dafa daal di chargé moo tax teewul fa li nga xam ni moom mooy tribunal loolu nag nekk ay information yoo xam ne ñi ngi ko jot ci couple bi di Mame Goor Diazaka ki nga xam ni moom mooy faatu Thiam ñuy wax ni jamono ji dañoo nekk en de divorce ñu bari di wax ci moom jamono ji mooy ci ki nga xam ni euh, moom mooy Mariétou ñu gën ko xam ci turu euh, Marichou euh, ginnaaw coow li nga xam juddu woon na ñu doon wax ni am na ñeneen ñi di wax ni amul doom polémique bi bari loolu dom jooju sax ñu doon wax ni kii di Khadim Sène ñu gën ko xam ci turu bili lako amal ki di Marichou beneen polémique daal di juddu ci moom ah, moom nag dafa daal di publier ay photo yoo xam ni dafa daal di sol robe de mariée ñëpp jàpp ni ki nga xam ni moom mooy Mariétou dafa doon wu waaye information boobu nag dañoo mujje ah, xam ni wérul ah, kii di Marichou nag ah, marié dafa soloon loolu la rek ngir def li nga xam ni moom mooy shooting ñu bëri nag jàpp ni kii di actrice bile dafa bëggoon a détourner attention bi maanaam ñu wàññi wax ji ci moom jëmale ko ci li nga xam ni moom lañ ko doon jiñ di grossesse bu mu sekkoo nag ki nga xam ni moom mooy Xaadim Seen voilà mbok internet yi loolu lañ leen indiloon na tey ci seen revue de l'actualité nekkoon ni nga xamni mo moo gënoon ci xibaar yi fi jot xew ñu leen di wax comme toujours ngeen continuer di topp seen site d'information limametti ngir dara bañ leena rew di leen jox dig dajé benen yoon ak yeneen xibaar